mbokk internautes yi dalleen ak jàmm Assane Diouf mi nga xamante ni nag moom dañ ko dàkkantale ne moo dàq saaga ci Sénégal gi yëpp rawatina nag ci régime bu président Macky Sall bi nga xamante ni nag moom mi moo baax ci ñoom ndax saa su ne bu ñu jëlee benn ndogal wala boo ko su ko neexee rek mu daal di toog ca kanamu téléphone am wala ordinateur am saaga leen lu ne yàq leen lu mel ni xeme ba noppi daal di koy jël réseaux sociaux yi nag la koy partage ku ci nekk mu jox la ko ba bi nga xamante ni nag a milliers de vues moom Assane Diouf nag jamono ji dafa mel ni rek dafa daal di jël décision ne moom daal dafa bëgg a changer soppeeku daal di nag nekk ci yoonu baax bi daal di bàyyi saaga yi ndax moom mi ginnaaw bi nga xamante ni nag tey dafa doon amal ak janook juge bi nag mu daal di koy wax nag ci ab goo xam ne def na ko ne ba man daal dama seet ba seet wante nag je ne suis pas fier de moi maanaam ni ma mel ni sax daf ma sax neexul a te itam samay doom bëgguma ëllëg nag ñu gis ni ma mel nii wala nag ñu leen naan seen papa moo dàq saaga ci àddina wërngal këpp loolee nag lay bañal samay doom te itam am naa lu may rus am lu may gàcceel sama bopp moo tax monsieur le juge tey laa lay waatal ni dootoo ma déggati ma saaga moom Assane Diouf nag mbaaru fi mu ne dafa daal di yaru ndax nag bu nu fàttalikoo ci première vague bu Covid 19 bi lee nag ci la ñu ko tëjoon ginnaaw bi nga xamante ni nag président Macky Sall daal dinay def nag ab discours ci li nga xamante ni nag moom mooy état d'urgence ba moom itam mu daal di def benn postam si lu ko neex saaga Macky Sall ba doyal ak régime ba noppi nag daal di koy posté ñu jàpp ko boobaak léegi nag toll ci juróom moom mi mu nekk ca ginnaaw kaso ba nag feebar fa tànk ba damm fa muy xeex ñi nga xamante ni garde pénitentiaire yi lu nekk ci loo xamante ni nag ñaaw-ñaaw la moom mi Assane Diouf dund na ko ci kaso gi nag ci tëjëm gu mujj gile moo tax nag yàggaay ba ak la mu fa daal di daj moo tax dafa mel ni mu daal di décidé na dafay changé te itam soo yu daan rek wax lim daan wax wax ba ñu tëj ko nag ci kaso gi nag dafa daan am ay intervention droit de l'homme yi ñi nga xamante ni ñoo nekk nag euh, ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy nag société civile bi ak tamit yenn ci ay avocat di ko plaidel ba ci sax ay personne neutre wante nag bi lay yoon ginnaaw sax ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy nag waa nitu dëgg ak France frappe dégage yi nga xamante ni nag Guy Marius Sagna moo ko daal di nag jiite moom mi sax daan ne xam xamle woon ni dafa jot nañu bàyyi Assane Diouf mu génn ginnaaw bi nga xamee ne xeexoon na fa ak benn garde pénitentiaire ba ñu jot ta damm tànk ba jamono jooju sax ñu doon wax tànk ji boo moytu daañ ko nag dagg nag ndax nag sonn na lool nag ba tax dañ ko wax daal di beex génne ko nag ca prison boobule wante moom Assane Diouf nag jamono jooju ba tey ji amul benn nag ndimbal goo xam ne jote na ko ci état bi rawatina nag ab bàyyim déggandiku wala boo sax ñu bay ko mu ñibbi këram mbir mi nag yàgg lool ci moom moo tax nag ci démb bi avocat mi di daal di layool nak di sàkku ci moom ak liberté provisoire ndax nag dañoo dem ba xool ne daal dafa daal di feebar te feebar bi ne bu